et assainissement bi soo vu, après da ko voirie lu baax tali yi soo wax manque de propreté soo ko wax manque d'hygiène parce que l'eau lieu, c'est lié assainissement bi comme ni ma ko waxee dañ doon wax ne bu njëkk ba inondation la inondation de certains quartiers sous taw ak faible couverture du réseau d'assainissement inefficacité de la gestion d'évacuation des eaux faut la le ma nak nag bi ma dajeeg nit ñi nak yok na ci man remonté de la nappe phréatique dans beaucoup de zones de Rufisque muy mourid muy Arafat muy sant yàlla muy Babou Salam muy cité keur seigne Mansour fépp fépp fépp fépp remontée de la nappe phréatique gis ngeen nag priorité bobu nga xamante ni waa Tëngéej yëpp moom wax budget Tëngéej nous avons consacré 0,6 du budget 0,6 du budget moins de 1 du budget budget 2019 124 millions nous avons consacré donc li priorité nit ñi priorité mairie. bi mën une am explication milliards am 6 milliards 200 nit ñi un ñun problème mooy assainissement yow nga ne leen waaw comme un problème Nous avons 124 millions. 6 milliards yi dess na leneen lañ ci def waaye du ñu toppatoo affaire assainissement bi on tax ñu le programme parce que nag dañuy xam li mën a nekk ak li ñu mën a def ñu ne fii pour solution nous dañuy def un plan décennal d'assainissement de la ville de Rufisk su ñu waxee plan décennal mooy 10 ans 10 ans 2022 2032 vous avez 10 ans nak mën 10 ans bari na dé maire bi ñu falon 2009 su amone vision bi 2019 affaire yi jeexna ki ñu falon 2014 su amone vision 2024 avec yi parce que 10 ans day Nous ñun pas, inshallah dans 10 ans yalla nañu may fan bu nous ñun ñëpp on va se retrouver ici té dañ gis né 10 ans donc on va mettre un plan décennal d'assainissement bo xamné nak ki ko ñëk financer une ville attention

parce que gars yi bala nga leen naan jàppale ma da nga leen naan lii laa am soo nee lii laa am rek ñu jàppale la damaa soxla 10 milliards waaye am naa 5 ñu ne la mën nañ laa jàppale. moo tax foofu proposition bi c'est un plan décennal d'assainissement waaye attention bi ñu ne foofu la ñuy yem plan d'assainissement progressivement lañ koy réaliser quartier après quartier quartier après quartier chaque année ñu évaluer quartier yi ba mu des yeneen quartier en attendant nag muy agsi ci yenn quartier yi dañuy def ay aménagement artisanaux d'assainissement ba nga xamante ne jigéen ñi suñu toggee ba pare suñu jël ndox bi di ko tuuri du ñu génn dàngu ndox ba canal ba pour tuur ko fa duñ ko tuur ci mbedd bi police jël jàpp leen déedéet dañuy def aménagement yoo xam ne en attendant que le branchement à l'égout arrive parce que objectif bi loolu la tout Rufisque branché à l'égout balaa muy ñëw nag ñu ne nag balaa ngi balaa loolu di ñëw dañ leen defal nag ay édicule publique loolu moom du dara def nañu devis bi mu dara jaarul dara benn prix soo amee deux cent mille am nga aménagé ko def ko def ci benn tame boo xamante ne lekk yi duñu dugg suñu sottee suñu sottee mu dem mu jeex loolu yomb donc loolu mooy problème problème assainissement yi